ah kaay sëñ ma jàpp. moom moo yore lem bi. ah moo jaay lem mi ngi nii léeg-léeg litre bi deux mille. waaw ah, waaw wàññi ko wàññi ko. loolu laa war moom moo def ko bi incha allah. waaw boobu la wàññi. def fi mu mujjee. ah jërëjëf. jeex na amul woon. waaw wàññi. Ah, ah su dee. waaw. Eh. yëpp la waaw wàññil defal 1500. ñett waaw comme ça ñëw nañu ba fii. jënd 3 litres. mën nañu la ñaar. 1500.